asalaamaaleykum nuyu naa mbokk senegaal di sant di gërëm waaye si biir sant googu ak gërëm bi dafa am loo xam ni ah laal nañu laal nañu laal nañu ñun askanu ngéwël te dañoo war a jóg wane suñu bopp ndax fii lu yëngu ngéwël te ko desee bokk balaa ngay xam mitin bu amee ñun ngéwël lamb bu amee ngéwël bu taxawul dara du sotti ak yeneen nag yeneen ak yeneen ak yeneen kon damaa bëgg lépp li nga xam ni askanu ngéwél da see bokk muy Pikine muy Dakar muy Géejawaay fu mu mënti doon ñëpp ñoom si seen loxo si biir loolu daal moo ñu tax a jóg wasalaam dañuy mital te li ñuy mital muy altine à partir de à partir de 16h incha allah na fi fekk képp koo xam ni fii ngéwél bi nga bokk si arène nationale fii si Rydis. jërëjëf lii rek la.